saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa combat guy géeg rëg-rëg ba ñuy lijjanti te mujjuta lijjanti ko bile combat mboolem amateur bu ko bëggoon a seetaan boo moytu da nga muñ fan yii ñu génn négociation yu métto doon dox ci diggante ñaari camps yi mbër yi waa kër rëg-rëg nangu woon nañ ba tuuti kon ñu jot seen avance waa kër guy géeg ca desoon danoo bëggoon ku leen yokkal ndax li ñu leen fayoon dafa tuuti na mbir ma mujje mooy négociation sotteetul combat amatul guy gi le roi di simpi dafa mujjee mere ña doon dox combat ba loolee moo waral journal ba xëy ne guy dox combat bi guy gi dalee na mere lam mere mooy dafa jàpp ne gars dañ koo bëgg a sacrifier moom guy gi la xelam di mbalax guddi yi mooy Sénégal Entertainment Group dañ maa bëgg a sacrifier moo waral mu xëy jamab tontom ne personne ne peut me sacrifier ñoom waa m lenn rek lañ ma proposé mooy 25 millions te sama combat Siteu maa ngi laal 35 millions man dinaa daan Siteu ba noppi di wàññiwaat ci sama kase 10 millions ngir bëgg a bëre bu dee dañ maa bëgg a kàmbal dóor nañ seen loxo ci ëkk ma fayut kase bi may laaj sama digganteeg rëg-rëg du ma bëre kafu ma ci réewu ma ko jar ma sëgg rëg-rëg ko jar ma lem sama ngémb nekk ci leneen rax ca dolli ne li nekk ci ginnaaw ko dafa am ay nit ñu yi nekk ci ginnaaw promoteur bi di ko ruux saa yu waxee ne temps laa bëgg a fay mbër mi ñu ne ko jaru ko waaye man pour ma sëgg faaw ñu fay ma lu ko jar damay bëre damay animé combat bu ma am dama koy jaay kon aw lu may tiit aw lu may ragal aw lu may yàkkamti ma fay lu ko jar ma bëre ku ko mënul ma bàyyi la journal ba rax ca dolli ne li ni mel moo waral combat ba SAP waa GFM gannaaw ba mu leen rëccee nag quel promoteur pour s'offrir ce choc de rêve li ñuy xaar mooy saison bu ubbi Eumeu Sène Bombardier féete na boor Tapha Tine Boy Niang 2 na boor Sa Thiès Garga Mbossé na boor Gris Bordeaux Balla Gaye 2 na boor Modou Lo Ama Baldé féete na boor Papa Sow Siteu féete na boor am na yeneen i combat yu ñuy lijjantee ka dox diggante Modou Anta ak Ama Neex boo moytu dana taxaw Nekorel ak Marley moom taxawal nañ ko niki démb Nekorel bu Lansar ak Marley bu Papa Kan Pape moo ko taxawal bi le combat nag combat la ci biir combat yi Nekorel mi fi daanoon naan di fal le 1er dimanche 16 mu am booy bawol bu olympique de booy bawol yéeg ci kawam gannaaw ñaari defetam yooyu nag moom Marley dafa bëgg dox ci kaw ne ko réel rectifier bi dana yombam du yomb loolee faaw arbitre sifflé ba génn seen diggante bu nu jàllee ci Aline Sey ma fi kombaam yàqu woon ci digganteem ak ñàkk jëriñu génn na wax ci kàddu ya Xaadim Sàmb yëkkati woon moom Xaadim Sàmb promoteur bi tëggoon bi lee combat ba nu ko laajee dafa xam le ne bëre xaw ma duñu waat waaye balaa cee leen am faaw ñu jokkoo ak moom faaw ñu wax ak moom teg ko fu leer nañ bu fekkee dañuy négocier waat combat bi ñu xam bu fekkee leneen la def ñu xam waaye loolee faaw ñu toog waxtaane ko loolee du décision bu ñuy jékki-jékki rek jël fa nuy jeexale mooy ci Abdou Bakhoum may garde espoir moom la mu gëm yaakaar ko teg ko fu leer mooy Ama Baldé ak Modou ba dana am kañ lay am fan lay amee naka lay amee loolee la xamagul waaye li ba des mooy combat Ama mu am bile ngëm-ngëm nag mooy dafa jokkoo ak promoteur ñu jotee avance ñu ngi liggéey moo tax bi le combat ku gëmul ne dana amit ñoom gëm nañ ne combat bi dana am jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah